monsieur le maire ak conseil municipal bi ñu ngi leen di gërëm parce que bokku leen ci ñi nga xam dañuy ci yi di wax du déglu askan du ñu dem ci askan te du ñu tawatu askan yéen da ngeen koy def li leen dénk ICP bi nga xam ne euh, mu ngi te moom la na ngeen ko gunge na ngeen ko tette na ngeen ko won yoon bi waaye lépp ci biir waxtaan di wax comité de développement sanitaire yi dégg nañu waxtaan yi nga xam ne ñu ngi am ci dëkk bi dégg nañu ñaxtu yi parce que nguuru président Macky du nguur boo xam ne day tëj ay noppam ñu ngi waxtaan ñu ngi xool nan la ñuy fexee ba lii nga xam ne mu ngi dal acteurs communautaires yi te ñuy personnel bu am solo ci système de santé bi ñu ngi xool nan la ñuy xool réviser li nga xamne moy CDS yi pour que santé bi ñepp ñi ci liggéey mën ci gis seen bop ci lolu ci lolu la danelé di ñaan poste bi ak ñi nga xamne ñokay ñoo koy fréquenté yàlla def ci jamm parce que nak nag euh, nee ñu boy dem xaré da ngay outi càngaay waye ci wàllu wërgu yaram defe naa càngaay am nañu poste de santé. ki ñu tuddé bëss bi nak biñuy def délibération bi. monsieur le maire yi Pane Ndiaye dafa ne dama bëgg ngir mu leer ci bopp ñëpp tuddewuñu dispensaire bii Mbay Jonn parce que maamu Mbay Jonn la dañ ko tuddee ngir li mu doon ci Ngoundiane mandat bii ñun nekk 2019 ba 2014 bii monsieur le docteur def nañu plus de 200 millions ci santé sur fonds bu ma juumee rek bu ma juumee rek ñu wax tabax nañu logement maternité poste de santé pour une valeur de 20 millions. Réhabiliter logement et maternité poste de santé pour une valeur de 25 millions. Nous tabac poste B équipé tabak logement équipé pour une valeur de 35 millions. avons une ambulance, un poste

jënd ko médicament jox ko poste bu nekk bii ci mujjee jot jot na valeur bu 1 million avant muy tàmbali ci médicament weer bu jot ñu jox leen 160 litres de carburant pour leen ambulance yi ngeen jox na ngeen koy na ngeen koy jox carburant poste bu nekk poste bu nekk chauffeuru ambulance ba commune bi moo koy fay dépositaire ba nekk ca pharmacie ba commune bi moo koy fay ASC e ba commune bi moo koy fay poste bii biñ ko tabaxee ba pare ma xam ne état li mu yéene dafa bari dama ne leen danaa tàmbali bu nu ñëwee ma dem bu nu ñëwul dinaa dem te yaakaar ne di ngeen ñëw ñu jël sunu rakk sunu jarbaat kaay aasi sunu rakk sunu jarbaat di doomu dëkk bi dem ba am diplôme ku jekkaani sa dëkk dafa tëggul ku amuloon diplôme duma ko jël seen doom la doomam yaayam mi ngi dëkk fii ci Ndiodiol di taalibe sëñ Saliou Mbacké ñu bokk Ngunjaan ak papaam mu jàng am diplôme am nekkoon ndakaaru ca Fimois di liggéey ñu koy fay lu ëpp la ma ko proposé fii mu ne dinaa bàyyi ndakaaru ñëw ngir liggéeyal Ngunjaan liggéeyal càngaay kon ak yal na yàlla taxaw